ci jotaay bi weesoo leeraloon nañ Cheikh Ahmad Bamba kan la gañe jamono 1853 teel a mokkal Qur'an teel a tàmbale njàngum xam-xam ci ñaar fukki atam mbokk yi ci la raw ci xam ba ñu baree baree bari seedeel ko loolu mbokk yi Cheikh Ahmad Bamba ci peggu waajuram wu góor amul woon lenn lu muy xalaat wala lenn lu muy bëgg wala lenn lu muy yëngal ba lépp lu mu bëgg wala mu koy xalaat da koy xiyaas natt ko ba xam dëppoo naag waa waajuram bu góor waaw wala déet comme ne ko Cheikh Ahmed Amin Diop Dagana waxee Cheikh Ahmed Bamba ci dunduk Cheikh bu waajuram wu tedd wa amut lenn lu muy bëgg dafa mel ni néew ci kanamoo ko koy sang 1881 xibaar bu mett bu tar bu tiis ci ku baax ki daal di wàcc waajuram wu góor wa Mamour Anta Sali wàcc na liggéey mu nekkoon lu tiis ki nga xamee ni moo doonoon ak ndëgërlu waayam ki nga xam ne moo ko yar jàngal ko xamal ko lépp lu mu war a xam génn na àddina waaye Cheikh Ahmad Bamba teeroo ko ak ngëm yàlla gu mat ak ku dëgër ak ku wàkkirlu ci boromam tabaraka wa taala waajuram wu sell wa dem na Cheikh Ahmad Bamba des fi yor daara ji yorin wu sell wu màgg wu rëy comme ni nga xam ne ni waajuram wa noonu la ko yore woon bal dolli na ci waaye bul fàtte na ko waajuram wu sell wa yore woon mooy diggante taalibe ak ka koy jàngal maanaam kiy jàng jàng rek ko fi indi waaye sëriñ bi koy jàngal jàng rek la seqam moom nii la ku baax ki continuer ñoom fekk boobu amoon na lu mu bëgg lu gën a rëy loolu amoon na lu muy yéene amoon na lu muy xalaat loolu mooy lan mooy tilim tilimi bakkan yi nekk ci nit ki mu dindi ko fexe ba jànkuwanteeg taalibe yi yeggale leen ci seen borom marale leen ak seen borom yenn saa yi daana ko junj ci ay wax yenn saa yi mu mu di leen ko gaaral bal yenn saa yi mu wax ko ba dem ba koy wax waaye nag da koy fineteen mbokk yi bisub samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor Cheikh Ahmad Bamba dajale mbooloo mi taalibe yi fas yéene discours discours am boo xam ne ci la yoonu murit di tàmbali waaye ci la dunduk Cheikh Ahmad bam ba nara changé jóge ci un dem ci junni mbaa lu ko ëpp dajale na taalibe yi ci bisub samedi boobu nekk bis bu rëy bu yaatu bu historique lan la wax Cheikh Ahmad Bamba dikk na ñëw na ci kanamu taalibe yi discours bu gàtt boo xamee ni gën ngaa bari 30 secondes la mat ala man kaana saxibana li taallum fal yanzur li nafsih wal yazhab xaysu saa wal yawi li jinse wa man araada ma aradna fal yasir bi sayrina wal yuqim bi amrina lii la ko baax ki wax dama ne képp koo xam ne daara li la fi indi woon mooy am njàng kese yam xoolal say bagaas dajale ko dem fu la soob wala nga dellu ci say bokk bu fekkee da bëgg li ñu bëgg doxeel nañu doxee discours baa ngi noonu yoonu murid tàmbalee foofu ila liqa